mbokk bi àdduna dafa xat lool daanaka jeexam na bu desee dara itam du néew a néew la li muy néew néew li nuy dund nekk ci biiram gën koo néewati ndund soosi itam li muy néew néew li nu ci man dara nekkati ci biiram gën koo néewati ngir ak tëli la ñuy jëkke ku fi yàgg tuuti itam moom ngay mujje as diggante rek moo ci nekk soo xam ne ci la ñuy man li ñuy man lépp man soos yi itam li muy néew néew moom it day jaxasoo ay gàllankoor ak xeeti tawat ak ittey àddina te li muy néew néew ci la ñuy mën a fàggoo lu ñu yóbbuloo ci àllaxira gën a jëm moo tax ku ci toll war koo xam te lu ci bu baax ngir dunduk àllaxira yemul fenn te dëgmal nañ ko ba mel ne ca biir